الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بكو جلدي نجي سنت suñu سبحانه وتعالى كي لو خمني loo xam ñu koy nekk di ko ko ñaan jiitu ñuy dugg ci biir chehru ramadan te mooy li nga xame ni mooy dajewaat ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem lu jiitu ramadan ak bi ramadan amee ba sosoo ba léegi teroo ba léegi am na benn waxtaan buñ doon daje ak la bari ci yéen ñu dëppee ko woon ci suufu keppaaru ramadan yàlla mi dogal dogal na ñu am ca ñaar fukki daje ba yegsi ci fukki fan yu mujj yi suñu boroom yàlla ci ab nattaleem dëpp li ñu ubbil ñu suñuy jàkk mbokk loolu nekk xéewal gu rëy rëy rëy goo xam ne dëppoo naag ñaan yi ko ay jaamam doon ñaan na am loolu xam nañ ne euh, suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam dañu doon bégal ne ko jekk ni mi ngi noonu maccama a qawmun maccama fi baytin min buyuti Do du daje mukk benn ci benn néeg ci néegi borom bi ñuy jàng téere borom bi di ko fàttalante seen biir lu dul ni lu dul ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana wàcc ci ñoom la nga xam ni mooy ak dal dana leen yiir ci yërmandeem dana leen tudd ci malaaka ya nga xam ne nii ñoo nekk fa moom loolu mbokk ci waxtu yépp la ana nag bu dee wéeru koor wax dëgg yàlla day gën a feddaliku looloo tax ba ñu gisoon doonte ne ay xat-xat am na ci li nga xam ne nii médecins yi dañ koy wax lu aju ci wàllu daje yi waaye tamit loo xam ne xamuñu fu muy jeexe mënuñoo neenal tamit buntu yiw bu rëy boobee nga xam ne suñu yonent yàlla tegtal nañu ca ñu ne woon kon lum bon bon buñ fi dajee nañuy barkeelu même bu doon te ne ab quarante minutes dong lay doon sax ñu barkeeloo ko ngir sabab lu yàlla jagleel ñu loolee suñu borom subhanahu wa taala jégaate ca mooy yërmandeem ak ak dalam ak malaaka yi ñuy wër ak mu ñuy tudd ca malaaka yu kaw yi ne fa moom yal na yàlla boole ci suñu jotaay bi suñu boroom it ci ay kaw téefam dogaloon na bi ñuy mujj fi tafsir ñi ngi jeexaloon suratul mu'minuun ca aaya bu mujj ba mu ngi noonu ca suba ga lañ décrété nañ tëj jàkka yi mbokk ñu ngi doon wax ci sunu waxtaan yi passé di wax ni ñi ngi am yaakaar kat delluwaat ca jàkka ya ndax gannaaw suuratul muminuun suratu nuur moo ci tege ca nuur mooy leer muy wane ni lëndëm gi lu mu yàgg yàgg leer dana mas a feq loolu it lañ ko doon ah, rafetloo ci suñu boroom ba suñu boroom defal ñu ko tey kon ñiy war a jël tey aaye bu jëkk ci suuratul nuur mi ngi noonu रजी भाई शेख उमान ॿुधे परे न मुंहिंजे लाइ सुञी भिंड मुजक न بارك الله فيكم <clears throat> سني بروم سبحانه وتعالى داي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة أنزلناها لي داي صار لو خمني نين يلا نيوكو واتشي وفرضناها نين يلا يت ñoo ko farataal wa anzalna fiha ayatin bayyinat ñoo wàcce ci saar bi it aaya yoo xam ni yu leer naññi la loolu lépp la'allakum tazakkaruun ngir ngeen doon ñoo xam ni dañuy doon ñuy fàttaliku الزاني ki nga xam ni ab njaalookat la ca góor ña mi ngi noonu azaniya ki nga xam ne ab njaalookat la ca jigéen ña wa ak njaalookat ba ca góor ña fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda dóor leen képp kenn ci ñoom téeméeri yar ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله تبولين جاب تنيوم ليغا خمني موي أغني وانت تدين يالجي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر سدين نكينجين ديغم يالا تديغم بسب مجب وليشهد عذابهما تائفة من المؤمنين na fekk mbugal bañ leen di mbugal benn kuréel ca julit ña azani am njaalookat bu góor laa yankihu illa zaniya du mën a njaaloo lu dul njaalookat bu jigéen wala du mën a takk lu dul njaalookat bu jigéen aw mushrika wala boog ab bokkaalekat wa zaniya njaalookat bu jigéen laa yankihuha du ko takk wala du njaaloog moom illa zanin lu dul ab njaalookat bu góor aw mushrik wala ab bokkaalekat wa xurrima zalika ala almuminin ndax loolu dañ koo araamal ci ñi nga xam ne dañoo gëm walladina yarmuuna almuxsanat ña nga xam ne nag dañuy jiñ ak njaaloo jigéen ñu fegu ña summa lam yatu bi arbaati shuhada ci indi wuñu ñeenti seede fajliduuhum samaniina jalda door leen leen juróom ñetti fukki yar wala taqbalu lahum shahadatan abada ca bu leen nangooti ñel leen ak seede mukk wa ulaika hum alfasiqun ca ñooñu day ñooy ña nga xam ni ñooy ña génn ak toppug yàlla illa allazina taabu min ba'di zalik xanaa lu dul ñu tuub gannaaw loolu wa aslahu yewenal la nga xam ne defoon nañ ko fa inna allaha ghafurur rahim sa borom yàlla kuy jéggalaate la kuy yërëmaate la mi ngi noonu mbokk li mooy suratu nuur alquran lépp njub la waaye nag am na yu ca yàlla tànn ñu gën a doon luy gën a jege jullit ñi bokk na ca suuratu nuur suñu yaay Aïcha daana wax góor ñi seen soxna yi jàngal leen suuratu nuur ca ngeen jàngal leen ñuy mën a rabb ak a ñaw ngir ñu mën a toog lu bari ci borom xam-xam yi dañ koy tuddee suuratul usra mooy saaru famille bi ndax ni muy régler problème mu famille Omar al-Khattab bindoon na ña nga xam ne ñooy waa Kawfa ca Irak Abdullah ibn Mas'ud moo fa nekkoon gouverneur ne nañu fexe ba li nga xam ne mooy suuratu nuur ñu jàngal ko seeni jigéen mbokk kon saar baa ngi nii suñu borom yàlla ubbeeku ak tagg suura mu ne lii de aw saar la boo ko déggee rek yow mi aji xellu danga laaj loolu lu mu doon suñu borom mu ne suura aw saara ngi de borom bi nee na anzalnaha ñun yàlla ñoo ko wàcce loolu di teraanga teddaange bu mag bu jëm ci saar boobee ndax kat suñu borom alxuraan yépp moo ko wàcc kon lu tax mu jagleel saar bi ne anzalnaha mooy ngir jullit ñi bàyyi ko xel borom bi teg cee ne faradnaha ñoo ko farataal mbokk alxuraan léppam yàlla farataal ñu jëfe ko mu ne ki gëm leen weddi leen dana ko toroxal aduna mbugal ko alakhirah afa tu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd kon yalla farasal lepp waye sar wi ndigal yi ci nek mune man yalla mako faratal ñu jëfé ko ñettel bi anzalna fiha ayatin bayyinat suñu borom feddeli wat ne ma wacce ci bir sar bi aya yu leer nañu loolu it di gën a feddali ne suñu boroom yombal na leeraayug saar bi yombal na compréhension pour nit ñi mën koo dégg waaye it ngalaw ñu mën koo jëfe moo tax borom bi tëje ko ni ngir ñoom ñu mën a doon ñuy fàttaliku aayey borom bi fàttaliku aayey boroom bi ci gën a néew mooy di ko jël di ko jàng waaye nag du loolu moo taxoon mu jóg la taxoon mu jóg mooy boo yegsee fa yàlla digle aaya ye nga jëfe ko fa loolu mooy tax suñu borom ni la la laallakum tazakkaruun waw gaa yi saara ngi nii suñu borom tagg ko ne moo ko wàcce moo ko farataal wàcce na ci ay aaya lan la ci yàlla digle njël beenu ndigal li suñu borom mu ni kii nga xam ne am njaalookat bu jigéen la ak njaalookat bu góor dóor leen leen bu ngeen amee ci ñoom preuve ku nekk ci ñoom téeméeri yar yaru der bi jëlda loolu it ci xikma ak alquran suñu borom lu muy boole góor ak jigéen góor lay jëkk a wax doog a wax jigéen lang yi ëpp it noonu la ba baa Occident di ñëw wëlbati mbir yi jël jigéen ñi def leen kilifay góor ñi ca ku xam Occident ci dëkk tubaab ya da xam ni jigéen mooy kilifa ca kër ga moo tax bu ñuy wax dañ naan madame monsieur mademoiselle ila axiri toujours madame la jiital waaye mbokk déedéet am ma njaaloo gi suñu borom jiital jigéen lu waral loolu njaaloo fu mu tasaaroo jigéen moo ko tasaare tubaab bi taaralal leen ko ne c'est le plus vieux métier du monde ca wallahi dañuy kacc ñu ne métier bi gën a yàgg mooy nit ki jaaxle dem jaay boppam loolu moo tax ba tey soo demoon polyclinique gi fekk fa des milliers laa wax des milliers ci ay jigéen ñu inscrire fa ñu jox leen ay carte ñu am droit dem di njaaloo trois heures de matin policier buy ramasse dajeeg ñoom buñ ko wanee seen carte mu bàyyi leen bàyyi bu nar a dox seen digganteeg loolu bu ñu demee police ñu jël si ko loolee mbokk mooy la am amma góor gu ñu jox carte pour mu njaaloo loole kenn gisu ko mooy daq lay bañ cay layee ne waaw soo gisee ñu jox leen ay carte dañoo bëgg di leen contrôler pour di leen faj waaw góor ñi ñuy njaalool nag ndax ñoom du ñu leen contrôler faj leen kon loolu mbokk déedéet pexe la bu ñuy am ngir saxal loolu ci sunu société borom boobu subhanahu wa taala ni buñ leen jàppee nañ leen dóor téeméeri yar ca bu ñu leen di dóor bu ñu am ci ñoom yërmande nañ leen dóor ba ñu xam ne dóor nañu leen ci loi boo xam ne fii diinillah la loi yàlla la bu yàlla wàcce mbokk suñu delloo ci suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam keroog ba almaxzumiya ba sàccee bokkoon ca jigéen ñi bokkoon ci famille bu kawe gaa yi ne ah kii day dagg loxoom ci dëkk bi dana nekk gàcce goo xam ne dana topp famille ba faw Usaama kay dem laaj yonent yàlla bi lan la mën a joxe ba dañ dagg loxoom bu doon téeméeri gileem sax ñu joxe ko Usaama bi mu ñëwee ci yonent yàlla bi wax ko ko yonenti yàlla bi dafa mer mer yéeg ca kaw minbar ba ne lii de moo alagoon ñu leen fi jiitu woon looy yàlla yi bu dalee ci baadoola ñu daal di ku koy teg bu dalee ci kilifa ñu nëpp nëppal ko masla wallahi fatima bint muhammad bu sàccoon danaa dagg loxoom kon bu leen leen jàpp yërmaani fi diinillah su dee ne kay gëm ngeen yàlla gëm la nga xam ne mooy àllaaxira mi ngi ñëw te mbokk bu dee da ngaa yërëm njaalookat di ba a doo ko dóor am ndax ndax xam nga la cay jur heure bu demee àllaaxira bu dee ne yàlla jàpp na ko nu muy demee ca loolu ñu xam ne mooy yërmande yërmande mooy nañ indi yar ko njaaloo ñu duma la ngir njaaloo jóge fi doonte ne ni alquran sunna moo koy firi kenn du jaamu yàlla alquran kese ndax bu doon looloo kum mën a doon boo njaaloo dañ lay dóoro waaye sunna moo ñëw ne déedéet lii ñu ngi ci jublu célibataire yi nga xam ne musu ñoo sëy ñi nga xam ne musu ñoo sëy waaye ki nga xam ne may nañ ko soxna walla may nañ ko boroom kër ñu ànd benn yoon cib lal tas sëy ba ba ila yawmi diin ku ci njaaloo njaalooti borom bi nee na nañ jël ay xeer dóor ko ko ba mu dee lii kon mooy ñi mësul sëy su dee gëm ngeen yàlla ngal la way def leen loolu loolu muy wane ne mbokk sida tey kenn xamul ñaate million la rey dans ce monde ci àdduna bi te wallahi bu doon te ne loob yàlla bi tëral nañ ko ku fi njaaloo ñu rey la ku fi def naka sudul noonu ñu duma la lu ñu rey sax un centième ci li si loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag ne bu ñu leen di duma na ko jullit ñi fekke bu leen kenn duma cib néeg nañ ut mbooloo moo xam ni fekke nañ ko lu ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne lu mu néew néew dana mat ñeenti nit ndax lay saxal ñu ne ak njaaloo mooy ñeenti nit kon fokk mu am ñeenti nit yu seede ni ñii kat duma nañu leen borom boobu kon subhanahu wa taala loolu la wax ci wàllu googe gannaaw ba nag mu ne njaalookat bu góor du dem mukk ñu koy may jigéenu jullit bu fegu njaalookat na moom dong la mën a sëyal te loolu mbokkit ñu war ci bàyyi xel bu baax moo di ni waa ji ak ab kat-katam ak i million yëg nga ci moom moom kat day wër di jaaloo mu ñëw ne dafa bëgg a takk sa doom bu jigéen xaraam na nga may ko ko xaraam na nga may ko ko tànk yëgoo ne tuub na tuub gu sel soxna si gàddub saagam ku ñëw mu ne bismillah nga yëg ne kii am kat la xaraam na nga dem di ko takk ceeb sëy ñu borom mu ne loolu araamal nañ ko ci jullit ni donte ne am na na yoo xam ne dañ koy fire mooy laa yankihu bi mooy du sëy ak moom ci njaaloo ay njaalookat bu góor su indi woon caabi oto bu bees taq ak chegu dix millions ci jigéenu jullit ne ko kaay ñu ànd benn yoon da koy wax lu bon wan ko gannaaw kon kan la mën a convaincre ba njaaloog moom mooy njaalookat ne moom rek walla boog mushrika yéefér yi nga xam ne xaraamu lu ñu njaaloo xaraam lu ñu njaaloo loolee rek la mën a doon naka noonu it njaalookat bu jigéen suñu borom mu ne kenn du njaaloo moom lu dul bokkaalekat wala njaalookat ne moom te mooy Miss Monde ngi nii Miss Monde mu ñëw sakkoo ki gën a pauvre ci jurit ni kaay ñu njaaloo danaan ko déedéet yàlla dafa xaraamal loolu te loolu itamit ñu bay ci xel bu baax rawatina yéen jeunesse bi am nañu bari ñoo xam ne mucc nañu duñu sol seen dàllu utik njaaloo waaye lu bari ci jaami yàlla yi amuñu kattan jigéen ñëw jox leen boppam ñu rejeté ko loolu mayu yàlla la yeneen ci bàyyi salaam bégee ci ne képp koo xam ne ju taaru borom famille bu mak woo na ko ci ab roq bu kenn yëgul ci ak njaaloo mu ah, man dama ragal yàlla ëllëgi ki si biir dana bokk ñu ñuy keral ci keru arsh ba loolu ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom bàyyi loolee nga xam ne nii mooy aju ca ñay def lu bon la ñëw nag ci beneen catégorie doomu aadama mooy ñan ñi nga xam ne ñoo gàddu seen làmmiñ rek di tuumaal julit ñi borom bi ne képp koo xam ni tuumaal ne ab julit njaaloo fii mi ngi joxoñ jigéen ñi ndax jigéen moo gën a a doon koo xam ne nii ku ñuy gën a gaaw jiñ ak njaaloo la looloo tax dëkk yu bari da nga digg cagala rek nangam nangam te pourtant ay góor la koy séqal mais góor yi duñ leen wax loolu waaye nii yàlla waxee jigéen ñi fegu muy muhsanaat noo nit la yàlla waxee la nga xam ne muy muhsinin bépp góor bu fegu doomu aadama bi wëlbatu ko jiñ ko njaaloo loolee mbokk lu jiitu nañ xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da boole woon minal kabair bakkaar yu mag yi bal ya cay alagaate la dafa am bakkaar bakkaar bu mag bakkaar yi alagaate muy al muubiqaat bokk na ci as gor su fegoo jigéen boo xam ne kenn mësu koo gis mu wax lu ak ak góorug kenn mësu koo gis mu am ak relation denn ak góor ak jàmbur feegu teyib sëyam nga ñëw yàq yàq yàq deram walla góor goo xam ne kenn mësu koo xam ak caaxaan ak jigéen nga ñëw yàqu deram suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ñooñu bu ngeen leen jàppee te indiwuñu wuñu ñeenti témoin yuy waññe ne li ñuy wax dëgg la duma leen leen juróom ñetti fukki yar ca moo ko xam ngeen juróom ñetti fukk ak téeméer sorewul duma leen leen juróom ñetti fukki yar te mbokk suñu boroom yàlla bëggul ñuy indi ay nit ci njaaloo di leen rayee ko duma looloo tax attey sharia yi quatre-vingt-dix-neuf pour cent ya pour euh, attekat bi nangu ko ñaari seede la laaj xatta nit xatta nit ñaari seede yu maandu ñëw nañoo seede ne diw moo rey diw sharia yi day nangu loolu waaye bu dee njaaloo nag bu dee njaaloo ñetti nit yu maandu ñëw ci attekat bi ne ñoo fekk diw ak diw ñuy njaaloo lan la attekat bi def nañ dellu ci cour suprême bu Omar ibn al-Khattab anhu ñetti nit ñëw nañu ci moom ne ko ñoo fekk ah, diw ak diw ñuy njaaloo mu ne ah waaw ana ku leen ñeenteel a ah, amuñu ko de waaye ñun ñett yi ñoo ko fekkee Omar ne gaa yi ana gaa yu duma ñu na jàpp leen duma leen leen ñu duma leen ku nekk juróom-ñetti fukki yar bokkoon na ca moor Thiam mu jóg ne waaw duma ngeen ma de waaye maa ko fekke Omar na jàpp leen ngeen duma waat <laughs> yaa ngi dégg doonte am na ñu naan sax Ali ibn Abi Talib ah, kii comme duma nañ ko mu seedaat war naa mat ñeenteel mais Omar na ko déedéet tant que amuñu ñeenti seede dañ leen di duma mbokk lii mooy diine maandu teg l'islam am maa nag bu ñu amee ñeenti seede yu xam ni avant loolu xamaluñ leen woon a ak woor ñu ñëw seede ko su boobaa dañu war a duma ku nekk la nga xam ne mooy juróom ah, mooy ah, téeméeri yar bu dee ñii indiwu ñu ñeent ñu duma leen juróom-ñetti fukki yar waram bi teega ci ne gannaaw boobu bu leen jëlati mukk seeni seede xanaa lu dul ngeen yëg ne tuub nañ tuub gu sell borom xam-xam yi ne buñ tuubee tuub gu sell bañ xam ko mën nañu nangu seen seede yépp donte ne am na ci ñoom ñu ne mën nañoo nangu seeni seede sauf ci njaaloo sauf ci njaaloo njaaloo moom kenn dootu ci nangu seen seede loolee mbokk kon mooy ñaari atte ya jëm ca ñay def lu naka su dul noona ak ñay dóoral naka su dul noonu luñ deful kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane بارك الله فيكم <clears throat> سني بروم جل وعلا مني والذين يرمون أزواجهم نيغا نعم، خمني نوي سني دي جنجالو سين سخنيا ولم يكن لهم شهداء <clears throat> ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم نيكول يعني نيل لين أجي سيدي لوجل سين بكان يكسي فشهادة أحدهم سيدك النتنيوم أربع شهادات بالله لنك نينت سيدك يلني إنه لمن الصادقين نممكت بكنا كنجا خمني دنيو دقو والخامسة أما جري ملب أن لعنة الله عليه موي ربم يلا دي na wàcc ci moom in kaana min alkazibin su dee ne moom daa bokk ca ñay fen wa yadra'u anha alazab des na jeñ ñeel ko lii di mbugal ma an tashhada arba'a shahadatin billah billah mooy mu seede ñeenti seede ci yàlla innahu la min alkazibin ne sama jëkkër ji day ci fenkat yi la bokk والخامسة أما جرم الب أن غضب الله عليها تموي مرم يلا نواتشموم إن كان من الصادقين سديس مجكر لم ولولا فضل الله عليكم ورحمته بدل وننك ليغا خمني موي لو يالا تيين اغير ماديم وان الله تواب حكيم يا صبرم يالا دي نك نكو خمني kuy sax di nangu tuubug jaam bi la xakimun kuy xereñe ki nga xam ne xammee na jaam ya nga xam ne seen tuub sell na ak ñi seen tuub sellul mi ngi noonu mbokk aay yi jàng nañ ko biñ ko jàngee kenn ci kilifa yi madina yi di saad ibnu ubada ñëw ne waaw yeneen ci yàlla bi man ma ñëw sama jabar fekk fa góor ma dem di jëli ñeenti seede bala maa ñëw fekk mu pare loolu daal yi mu yàlla yu ni man duma ko def ku ma fekk sama jabar dinaa la rey mbokkam yépp tiit ne ko ah yow mi yàlla yónni dimbali rek nga bañ koo tapp baal ko kii ñun dañ koo xam daa fiira fiira fiir musul takk lu dul jànq ndax fiir bépp soxna bu mu fase kenn ci ñun ñi ko takk ngir xam fiiraayam yonent bi sallallahu alayhi wa daa di muñ daa di ne li muy fiir fiir day maa ko gën fiir waaye li muy li muy fiir fiir yàlla ma gën fiir ca loolu kon mbokk mi ngi noonu amma waa ji li mu wax wuru ko a wax ndax atte yàlla la wurul réagir noonu waaye suñu borom yàlla lu bari ci alquran da koy utal ay sabab dañoo toog yàggul dara rek saat daal di ñëw daal ne ah yow mi yàlla yónni la ma la doon wax de yàlla nattoo na ma ko sama famille mu ne ko ah, lu xew mu ne ko waaw sama ah, jarbaat bii di hilal ibnu umayya hilal day moo ne moo fekk benn waay bu ñuy wax sharik ci soxnaam ci bi alayhi salaam ne nañ ko woo mu ñëw ah, mu ne waaw hilaal ana la nga xamee ni nii mooy say seede mu ne ah, yàlla yónni dëgg dëgg day ooma benn seede waaye maa ngi seede ci yàlla ne maa fekk ci sama soxna yonent bi ne ko ah dëgg dëgg nag day soo indiwul ay seede fokk ñu duma la fokk ñu duma la Hilal ne ah mën nañ maa duma de waaye day maa ngi seedaloo yàlla ne wax na dëgg foofu place boobu la yàlla yónni Jibril alayhi salaam mu daal di wàccee aaya yi ñu Cheikh Ousmane jàngal léegi ngi noonu suñu boroom yàlla nag ni bu dee ne góor da dox ba fekk sa moroomu góor ci sa soxna am nga droit yow dem ca justice boole ko fa mi ngi noonu kennin ku dul yow sañu ko waaye yow borom kër gi am nga droit dem justice boole ko fa su boobaa boo ko boolee islaam dana la da koy waatloo la nga xam ne mooy ñeenti waat comme ni mu ñëwee ci aaya bi bi aaya yi wàccee yonent bi alayhi salaam ne nañ ma wool soxna si ñu woo soxna si ñu ñëw ñu toog ci kanamu mbooloo mi mu daal di jàngal Hilaal aaya yi nga xam ne moom la yàlla wàcce Hilaal daal di jóg daal di ne wallahi wallahi yow mi yàlla yónni diw sharik maa ko fekk sama soxna wallahi maa ko fekk sama soxna juróomeel ba mu ne su dee ne damay fen yàlla na rëbbum yàlla wàcc sama kaw bal da ne sax bi mu wàccee ñeenti yoon bëgg a waat juróomeel bi yonent bi jóg jël loxoom teg ci gémmiñ gi na ko hilaal xoolal li ngay wax mbugalum àdduna ak toroxtaange àdduna day moo gën a woyof toroxtaangeeg àllaaxira ak mbugaluk àllaaxira ci kanamu nit ak jinne mu ne ko wax nga dëgg yow mu yàlla yónni waaye maa ngi waat ci yàlla ne li ma wax dëgg la maa fekk diw sama soxna li may wax bu dee du dëgg yàlla na rëbbam yàlla wàcc sama kaw yeneen ci bale sa naa soxna si loo ci xam soxna si daay moom it daal di jóg wallahi waxul dëgg wallahi waxul dëgg wallahi waxul ba ci juróomeel ba bi mu ba bëgg a waat yeneen bi ne ko ah soxna si xoolal li ngay wax toroxtaange àdduna ak mbugalu àdduna moo gën a woyof bu àllaaxira soxna si hésité hésité waaye gannaaw ba mu daa ji wallahi bu dee bu dee moom li wax dëgg la yal ne merum yàlla wàcc sama kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waaw léegi jóg leen dem islam teqalee ne seen diggante ba faw ca loolu mbokk mooy li nga xam ni mooy tax jigéen araam góor ba faw ba faw bokk na ci mooy ñu rëbbante ci seen diggante suñu boroom yàlla mi àtte lu ko neex dogal na sëy boobee nga xam ne nii ah Hilaal waxoon ne ne da caa tuumal soxnaam yàlla sos ca doom yàlla sos ca doom ba mu ca sosee doom doom ba bu mu juddoo kenn xam mii wu ko ak sharik mañ ko doon tuumaal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku ma digg nga wax dara ci moom yari yoon dana tege ci moom ba doom joojee màgg na ba doon sax bokk ci ñuy jiite armée islamique ñu féete ko féetalu ko yaayam parce que bu rëbbanti amee léegi doom ji yaayam lañ koy féetali loolu nekk kawtiif ci kawtiifu yàlla mi ngi noonu da benn histoire bu yàgg ci euh, benn jigéen boo xam ni jëkkër ji tukki woon na mu am kuñ ko doon tuumaal tuumaal ja daal yégg na dayoo ba jëkkër ji dellu si après am na doom doom bi kenn xam mi wu ko ak kañ ko doon tuumaal yàlla dogal benn as soxna ñëw moom xamul lu xew jóge ci àll ba ñoo fekk xale bi ci biir kër gi rek mu na waaw doomu diw ji lu muy def fii gis ngeen mag ñi fekk woon démb bi ñëpp ruus parce que xamul lu muy wax kon loolu ci kaw téef la ci kaw téefi yàlla waaye nag mbokk loolu du tax ñu tuumal ci jigéen ñu bàyyi ci xel bu baax wala fi dañ naan nuru sa bàyyi nuru moo gën nuru sa xariti bàyyi am déet tey de jigéen am na doom ju nuroog góor sàngam du tax ñu tuumal ku ko tuumaal yari yoon day dal sa kaw loolee ñu bàyyi ci xel bu baax allahuma ci kaa bi nii ci jamono Omar ibnul Xattaab am na benn kaa fa am benn waay ji moom daa ñëw fekk benn waay ci kaw soxnaam mu jël jaasi rekk caw caw caw ba waa ji dee mbokk yi daal di ñëw ci Omar ne ko diw moom moo rey sunu mbokk diw bi ko Omar woowee <laughs> ne ko waaw yow diw lu tax nga rey kii mu na ah maa ngi lay seedeel amirul mu'minin sama jaas bocc jaas sama jaasu ji sama diggante ñaari pooju soxna dong laa ko dóor waaw dóoruma ko fu dul sama diggante ñaari pooju soxna Omar jël jaasi ji xool ne ko kenn ci ñoom bu delluwaatee sa soxna dellul def na nga def waa joojee <laughs> yaa ngi dégg ba loolee ci sharia dañu naan képp koo xam ne danga ngaa fekk góor sa soxna boo ko reyee day perte diyam day perte allahuma na nag bu dee ci wàllu loi moom daañu la topp daañu la topp ci loi yi nga xam ne charia da ko mujj tëral yépp ndax la nekkoon ca sahaaba ya nekkul ci génération yi ñëw gannaaw ndax bu doon looloo dana yomb ku nekk rey ñi dag na sama soxna la ko fekk moo tax sa digganteeg sa borom amoo ci benn bakkaar képp ku fekk góor ci sa soxna nga rey ko sa diggante ak yàlla bakkaar amu ci waaye sa diggante ak loi nag fokk loi moom topp la ci da nga rey nga ci loo xamee ni nii yow amoo ci woon droit nga xam ngeen ne ci lislaam kenn dong nga am droit rey muy attekat waaye keneen ku dul attekat amul droit rey même boo fekkoon ñu ki rey sa ndey say sa amul droit rey ko attekat rek mu am droit rey comme ni mu amee ci loi yi nga xam ne am na ci loi adduna bi yépp loolu kon mbokk dañuy gis ne dañoo bëggoon ñu doyloo ko tey euh, incha allah baba yàlla subhanahu wa taala dañuy fi dajalawaatit la nga xam ne ni moom mooy suba dañ leen ko waxee la chaque ne gàtt na euh, wuñ ci waaye nag comme situation bi moo tëdd nii ni ñu man rek gis buñ dajé lu mbon bon jël 40 minutes fatali ko ci ngiré sabab ba moy lan li ñen waxon ci jël ben la yonnati bali sallam diga te ca ñay dajé ci négu yalla ba di jang ab tirim yalla bo la ñi ci rawati na wéru koor bi li nga xamné jot nañ ko ci jël yalla na yalla barkel ko yalla na yalla def ko mu ñi jërñ aduna ak al-akhirah mbokk mi ngi nonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in allahuma lu dul dañ bàyyi bu doon te ne cinq minutes cinq minutes ngir liñ jotoon di waxetaani nii ci masala yi koo xam ne amoon na ci ab laaj diirub cinq minutes gannaaw bañ la ñu teqali ko naam bismillah cheikh abdoulaye ah, ah. waaw ndax tafsir day am chaque jour insha allah insha allah dañ koy saxal chaque jour boobaa koor gi di jeex bu koor ga jeexee ñu doog a dellu ci suñu àllarba ya loo ah non mënuñu koo def ba bokk démb bi ñuy mujjee diisoo ci jàkk ji sax dañoo gis ni lii nga xamee ni nii moom mooy waxtu gée gi actuellement nii bu ñu ko jullee normal bu ñuy sëlmal day fekk neuf jot na nit ñi nag war a génn jàkka ji dem seeni kër te ci kanam tuuti dans une semaine mën naa dem ba nekk daanaka jege mooy dix ba nga xam ne bala ñoo sëmal day fekk neuf heures na loolu moo taxoon ñu gis ni maadaama ak lor la léegi dañuy boole timis ak géey bu ñu fa dajee julli timis julli géey bu ko defee nit ñëpp mën a dal am ci dal dellu si ni kër ci jàmm ndax la nga xamee ni ni moo ko waral bokk na ci li tax ñuy boole moy ab taw wala ak ak tit ca ku ne xam ne ni euh ak kilifa génn ay xale yu ndaw nan dañ koy dakk di ko dóor loolee jaaduwul am témoignage buñ fi témoigner démb ko xamne bi ke police yi di jàpp di dóor 9 h moy 1 minute mo jot lolé kon motax ñu décider ni inshallah dañuy bolé timis ak euh bus bu nekk incha allah naam naam ndax bu bëggoon takk jabar wa ala kulli xaal li nga xam ne mooy waladu zina di doomi njaalo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dani laysa alayhi min wisri abawayhi shay'a dara ñiilu ko ci bakkaaru la nga xamee ni nii mooy ay way juróom bakkaaru ak way juróom dara ñiilu ko ci allahuma doomu aadama bi am moom principe bi boppam ndax yow it sa principe bu bopp mën nañu nekk rawatina démb bi dëkk yi xamante ca la mag ñi doon wax naan doomi njaaloo buñ ko def imaam ndax bu dee ne yow danga ngaa nekk doomi njaaloo di xutba naan njaaloo kaza kaza caamin ya fa nekk dañ waay kii bu mu ñu rey waay loolu la doonte ne amul benn bakkaar léegi nag yow mu des moo di ne ni euh, kii nekk na ci dëkk bi ñëpp xam nañu doomi jaaloon la ngay tànnal sa doom jëkkër tànnoo ko loolu kenn doon la wax ci loolu dara waaye daal nañu xam ni moom moo góor ñëpp a yem képp koo xam ne xamut loolu moom ñëpp a yem loolu nañu wax waxee ci soxna si soxna si nga xamee ni nii doomi njaaloo la ku mel noonu itamit yow mi xam ne doomi njaaloo la ah nga bëgg ko moytu ngir jàpp ne kii kat baayam nangam la kaza wa kaza loolee sa principe bu bopp la waaye bu dee principe bu l'islam soxna si bu dee ne ku maandu la amul lenn lu ko différencier ak yeneen jigéen ñi loolu daal ñu bàyyi ci xel bu baax ñu naan doomi njaaloo nii doomu njaaloo wax loolu ñuy wax teguñu ko ci benn xam-xam doomi njaaloo moom ñëpp yem lu dul nit ki am principe bu boppam ndaxte jii man ngaa gis ne benn waaye ngi nii truand la workat la nga ne doo takk doomam te tamit loolu mag ñi dañ ko daan seet xool ci famille bu ñu daan tekke dañ daan wax famille bi famille njaalookat lañu dañ ko daan wax mi ngi noonu famille bi ay sàcc lañu famille bi ay tafkat lañu mag ñi dañ ko daan wax ku mel ne Omar euh, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu histoire bi ñu nar a jàng suba ñu jiñ ko yaay Aïcha daana wax ne ah dana yéeme de ndax ñun ci lislaam kenn musul xam suñu famille ci njaaloo ci arab yi dañ daan am loolu boo xam ne seeni maam kenn mus xam njaaloo léegi ñu dem ba dugg ci lislaam nag di njaaloo ah loolu de yéeme na gis ngeen waaye yàlla mujj setal suñu ay Aïcha ala kulli xaal dal ci gàttal dara ñeeru leen ci ñoom ñaar lu dul ko am principe boppam wallahu subhanahu wa taala alam نعم يكرنا كن بكو ميغي نونو ميغي نان سبحانه وتعالى يالله ني يالله ديفال افي في الدنيا والاخره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك